tal yëg-yëg yi beneen la actuellement loo yëg léegi combat bari suuf leku waaw li may wax rek ndi yaay mooy yaay kii sama lépp la man aw ma fayam si àdduna defal na ma lu ne ba may liggéey ñoo liggéey noo magasin ñoo bërëndoo lépp man liggéey bu mu nekk rek maa waaw mais tey lamb ji dama gis Pape Ndoye ñëw yëngutu nga daw sa diggante ak Pape Ndoye ci ne si ne du boo yëngu rek dara neeku si dara neeku si waaw uh-huh. man bëre laa seq ak rek gën a seeti leneen. mais tey bu ñu ñëwoon Talfa Pape Ndoye. waaw sëñ Fall lépp ay làmb la. yow pare nga ngir lekk avance. waay yow pare nga ngay wax bàyyi waxal man sëñ bi damay entraîné damay suba suba suba kun ma jox ma bëre yow. mais di saa fi nangoo. di saa yu Pape Ndoye bu keroogee jaaxal Talfa de wala. lan. di saa yooyu. Talfa nga bilaay walaay dara yéemu ma si bëre. dara dara yéemu ma si ah. dara dara. dara yéemu dara lal mais moo tax boo ñëwee ci lamb mel ni ko tàqali ko sa sago dara lamb la rek waaw dunay mbër lan waaw sa combat lan moo tax ba tay taxawagul waaw ah, adversaire adversaire rek de ñoom ñooy bañ rek waaw combat bi mën naa yàgg góor soog maama Lamine non lamb la rek waaw lépp si mën a ne ñun daal nan am ndam rek ñu ko amee baax na waaw nan am ndam rek waaw ndam bu leer nañu yàlla na ko yàlla may waaw loolu lañ bëgg kon ah, ba ci kan. waaw jaajëf wax Pape Ndoye laa soxla. 9 ans laa def Italie 9 ans. 9 ans nga def Italie barki Seydouna Mohamed. Bébé Modou Lô. waaw nekk champion Italie tax nga def 9 ans Italie bàyyi lamb ji. bàyyi wu ma ko ma Italie tamit lamb la Babacar dañoo dem pour daan doole dimbali suñu ay waajur bi ñu yàlla maye ay kayit ñu dem ñëwaat du dëgg ay xale la ñu am ñu yaakaar suñu ginnaaw loolu kese la. léegi sa xel daa dal fi mu nekk amu soo sa xel daa dal de damaa màgg. teg la cinq victoire daan moo jabu yoof daan njaga jóob bu Texas jàpp daan buuba fit daan wuli deux ñooñu ku leen daan champion nga général Malika moo ma daan ak Koña ñooñu mën nañ maa daan ak Aliou Seye waaye damaa dem màgg man mbër mosumaa yab Pape Ndoye daal nga gis yow Pape Ndoye nañ sëgg fii wax naa ko ko nee naa ko man ma caaxaanuma kafuma andiwuma biir andiwuma ginnaaw dem Italie di entraîner di liggéey jàpp sama ñaambur nekk di bu avance bi nga lekk. suba ma bëre bàkk bu ma bàkk fii nii ku jàppul du ko def xam naa li may wax bu baax xam naa li may wax bu baax Babacar man kafu ma de li may wax nii xam naa man kenn mësumaa gis may mballi mballi kafu ma de dem naa écrit ba adopté naa maa ngi entraîné di jër nuyu waa Rock Énergie nuyu Pape ma ñëwee ba léegi ma entraîné te damaa nekk si compétition man man damay compétir mbëru Sénégal ku fi mën a escouade 300 kilos 350 kilos na wax. ci Sénégal ku fi mën a coucher deux cent cinquante kilos na wax. amu fi amu fi. Sénégal boo top ma Sall topp ma Sall. naa ñëw naa ñëw Sall. champion Italie deux fois développé coucher deux fois régional cinq fois kenn musuma gagné Italie ma man ma nekk ma di wax fii loo xam ne gawuma ko li may wax dëgg la si man barke alxuraanu karim bu ñu sëggoon fii ma bëree loo fi mbër ba mu wàcc xam naa fi ma ko teg ah. du bëyee Modou Lo ñëw rek jaay combat bi ñibbi de déedéet suul tànk yi cons cadré xam naa ko. wala moom la fa nekk woon daa garaaw. alxuraan na liggéey laay def Babacar entraîné liggéey. def xolal barki alxuraan laajal waa Italie. xale yi dañoo pare xale yi nekk fii. ah man mag laa xam naa. Modou Lo moo ma yar. xale bu ndaw nga. waaw Modou Lo moo ma yar maa doon. xam loolu moom waaw. xëy na nit ñi ma ñoo bañ a xam. mais Modou Lo kay. maa doon téye ngemb Modou. Baye Pal Dolfu. waaw laay Pythagore. ku leen doon téye seen ngemb mag la. ana ñooñu. 89 laa judd. événement naar dañ ma koo nettali barke alxuraan dañ ma ko nettali waaw am jom teel a dugg si làmb ay champion la daal kenn musuma tànnal yoon Pam doy na ñëw ñu bëre. cey na ñëw ñu bëre rek amul wax parce que instant bi su ma waxee dañ naan dafa nekk si àll bi 9 mois mais xam naa fii laa koy leeralee amateur yi kenn mënu leen nax ñu suul tànk rek war a cadré foo si bëre wure. am am am problème na jël. mais Pape soxor na de. waaw na ñëw nañ loolu laa bëgg na ñëw. day dóore de. bëggul ku ko dóor moom. bëggul ko dóor boo bëggul ku ko dóor ñun xamante nañ champion la nag lamb moo ñu boole rek yaa may dégg du guerre day jël yobu kër baay man ma jël yóbbu sama kër baay dégg nga waaw loolu kese la. mais lamb ji temps yi daa seere de. lamb ji fu mu dëkk parcelle kan moo fa ëpp ay espoir an a ana Franc Ndiago ana Roi des Arènes waaw di entraîner nag te foowuñu barki alxuraan. alxuraan Sène yaa ngi koy gis. mu ñoo nekk ba entraînement ba barki démb wallaay al asim maa la ko wax. loo gis ma de na combat nekk suba keroog ba ma ñëwee laa takk ngeem man nekkuma fi di moodu moodoo di jaay affaire damaa ñëw dem ikiri ba. commencé bëri. barki gisoo damaa jeex tàkk wàññi naa lu bëri. Modou lu la wax bi mu la gisee. waaw kontaan 9 ma toog ko gisuma leen. neuf ans laa toog gisuma leen baaw Babacar man damaa tarbiwu waa Rock Énergie waa parcelle dama leen tarbiwu man xam nañ ñu may man dama leen a tarbiwu jox leen cër ñu jox ma cër ma ma nekkee fii wuñ dara ku si dugg dara dana ma béy Modou Lo nan laay def parce que xam nañ ma man du ma caaxaan du ma kaf du ma taxawaalu du ma def dara tukki neuf si mbër nga am jom ñëw siwaat ku am jom moo koy def fi ñuy jaar ma jaar fa ba am kayit te def lu lu yoon di tere national day nañ bàyyi noonu nañ ci def code nañ ci def code daal waaye maa ngi gërëm waa Italie tamit. lakkal ma Italie. ciao come stai tutti italiani. ah mio fratelli quello che vive a Napoli Venezia Mestre anche ti saluto molto bene sono molto contento con voi perché mio fratelli mie sorelle anche mia moglie sono di là mio figlio sono di là io sono sposato di là dama fa am soxna am fa doom waaw. am nga waaw sama yaay laa ko tuddee maman Aïssa maa ngi koy nuyu waa Atakataña yëpp. jabaru lan la sénégalaise la la ak sama sama sama doom nday Diop ñoom Maada ñoom Aminta Kan bàyyiwuma kenn yaa may dégg ñoom cekaa waa Venetia Fallou borom Napoli Fallou maa ngi lay nuyu di nuyu Ndey Coro yow sama nit nga di nuyu ñëpp waaw damaa dem di fonk ma bëgg ma na ma yow waroo foo ñëpp jox ma cër entraîné. dugg sama kër yàlla def ma bokk ci compétition musuma am défaite sant yàlla coupe Italie jël naa ko ñaari yoon régional ma jël ko trois fois. Modou Ama. Modou daan Ama jël bu gaañu ñu bi. tax nga wax loolu. dóor ko ba mu tëdd wala mu dóor mu tërëf mu dem jàpp yeggale. dóor mu tërëf. waaw dóor mu tërëf xam nga. man naa def Ama lool. ah, ah, ah, ah. Babacar géwal nga Modou fu ne voilà Modou Lac de Guiers. moment it naa ko fu waaw champion la baay Fall la man sama waay la dama koo bëgg waaw waaye gën a jege gën a yeey ama sama waay la dama koo bëgg bëgg laa wax dama koo bëgg ama ñëpp ko bëgg ndax dafa yaru waaye nag sama mag moo xew la Modou moo ma yar moo ma jàngal bëreet bañ naa ko bee Modou loolu may wooyee. dañ la daan jaawaleeg sax. Layl maa ngi ñaanal Modou yàlla na ko yàlla may ndam du yàq si Ama Baldé sama diggante moom dara. man duma foo si yooyu noonu man duma foo mbër moo dégganteel du ma sax waxu làmb parce que damaa yor ay mbër damaa nekk si écurie yi man du ma ko fooyee dañuy seq li ñuy seq mais làmb musu bokk dégg nga waaw man noonu laa ma soo doxee Babacar kenn musumaa dégg si moom bee Modou Lo mu ngi def lu ñaaw wala mu ngi non non maa la may émission boobu. waa Saloum. waa sa ah, fa laa jugee waa Lamaram maa ngi leen di nuyu waa. Lamaram waa Lamaram waa Kër Madiabel waa Taïba ña ngeen cubbeen gént kay. waa tay ma ñee ngeen fa laa jógee démb barke alxuraan yàlla yow démb laa jógee Saalum ba ma ñëwee fii jaaruma Dakar Saalum laa jubali seet sama yaay jubal direct ma ne ko bul taxaw fenn sama yaay laa bëgg a nam di ñaanal sama papa fekk ma ko fi yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko waaw tukki dafa métti Babacar jom mooy tukki waaye fulla mooy ñibbisi maa ngi ñaanal ña fa nekk ay boroomi jom ay boroomi fulla boroomu fayda ñoo xam ne dañ ngor moo leen fa téye am na ñoo xam ne am nañu xaalis waaye amuñu kayit yàlla na leen ko yàlla may Babacar man man naa bind si si Modou Modou ak Fatou Fatou nañ leen yërëm seen i mbokk yi nañ leen yërëm nañ leen jàppale. état jàppale leen. état jàppale leen ñun amuñu jàppale moom état bokkul si ñun Modou Modou yu fa nekk ak faatu Fatou yi ku gën àdduna ñoo lay taxaw parce que buñ la taxawul dañ lay jàpp lakk la waaye sénégalais danañ fexe ba jël bu dee 10 000 euros sax danañ fexe ba dajale ko néew bi ñëw loolu yëpp état la waroon. waaye moodu moodu yeeg faatu faatu yi Babacar boo nekkee fii doo ko xam foo nga dem fekk ji leen jug fajar muy sedd muy tàng ñu nekk si géej gi wallahi asim dañuy dem ba seen yaram bi day sensé été ay faatu faatu yoo xamante ni ñoo yor seen kër yor seen njaboot moodu moodu yoo xam ne ñoo yor seen kër yor seen njaboot Babacar da i gis ku fayee ko 1500 euros doo si lekk 200 euros 1000 euros yëpp da nga koy yónnee senegal gars yi kon maa ngi leen di nuyu bu baax ay jàmbaar fàq tëdd ngeen. man dama naan moodu moodu boo amul kayit kaso nga nekk parce que am na ñoo xam ne seen ngor mayuñu ñu ñëw te amuñu kayit ndax ñu ngi xalaat lim fi fekk maa ngi leen di ñaanal ku amul kayit yàlla na la ko yàlla may faatu faatu ak moodu moodu yàlla na la yàlla taxawu suturaal leen merci Babacar kontaan maa la raw yer waago ye jabar wan ge xejandaano ye yer waago ye jabar wan ge xejandaano way nañ ko ak lu mën a xew daal Mamour nañu way làmb ji mu ngi noonu billaay dëgg la daan na ko déedéet jël ba nag daanu nga yow mi sa ko bébé moom daanu ko